mbokk yi incha allah ñu ngi war a jël tey aaya téeméer ak ñaar fukk ak juróom benn ci suratu taaha fi sunu boroom subhanahu wa taala di waxe qaala kazalika atatka ayatuna fa nasitaha alhamdulillah wasalaatu wasalaam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain mbokk yi ñu ngi sant sunu boroom subhanahu wa taala ci daje bi ñu dajeeg yéen ci weeru tedd wi di shahrullah al muharram ca am bis bu tedd bu ci nekk di yowmu ashura ñu ngi ñaan sunu borom yàlla yàlla nañu dëppale ak ngëneelam donte ne ni comme ni ngeen ko xamee am na ci ñun ñu ko jàpp ne ajjuma lay doon am na ñeneen ñu jàpp ne samedi bi lay doon ala kulli xaal sunu borom subhanahu wa taala moom la muy fay mooy yéene yi su ko defee ku nekk la mu gëm mu sellal ko te yàlla tax yàlla ci mbaaxam mën na nangul ñépp yàlla na yàlla defal ñu ko ñi ngi koy sant ci wërsëgal nañu ñu daje mbokk ci ab néegam di fas yéene jàng la nga xam ne mooy ay aayaam doonte ne ni mi ngi ñu boole lit ay mbokk yoo xam ne ñi ngi jël seeni effort ca wallahi ci li ñuy yëg amuñu ca benn intérêt àdduna muy sit yi nga xam ne ñoom ñooy na doon xam sa diine bi ak waa sunni tv bi nga xam ne ñoom ñuy filmé ñooñu ñëpp gis nañu ne mbokki dégg diine yi la ñuy def mooy defuñu ko lu dul jottali ñi nga xam ne teewewuñu jataayu fa ñuy waxee yàlla nee na yonent yàlla nee na ñooñu nga xam ne ñoo koy taxawee ak ñu nekk seen gannaaw ñépp ñi ngi ñaan yàlla nañu boole yàlla boole ak ñoom ci ngërëmam boole ñu ci ñi nga xam ne ëllëg dañu leen di melal ne ñii kat ñooy ñooñu alquran innahu ala kulli shay'in qadir
نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم sun boroom subhanahu wa taala mu ne qaala kazalika atatka ayatuna fa nasiitaha naka nii day la la dikkale woon samay aaya nga fàtte ko wa kazalika al yawma tunsa naka noonu bisu tey noonu lañ lay fàtte wa kazalika najzi man asrafa naka ni noonu rek lañuy faye koo xam ne daa jéggi dayo walam yu'min bi ayaati rabbihi ca gëmul lii di aayay boroomam wala azabul axirati ashaddu wa abqa ca mbugalum alaxira day moo gën a tar ca moo gën a sax afalam yahdi lahum moo xanaa jubalul ñeel yéefér yi kam ahlakna qablahum min alqurun ana ñaata lañ alag jiitu leen ci ay maas yamshuuna fi masakinihim yamshuuna fi masakinihim yoo xam ne ñoom ña ngay dox ci seen dëkkuwaay ya inna fi dhalika la ayatin li ulin nuha nekk na ci lool day ay kawteef ñeel borom xel yu mat ya walawla kalimatun sabaqat min rabbik budul woon a kaddu goo xam ne daa jiitu bawoo ci sa borom la kaana lizaman doon na nekk luy lënkoog ñoom wa ajalun musamma ak dig bu ñu xam pour nga gën a mën a dégg mooy walawla kalimatun sabaqat min rabbika wa ajalun musamma la kaana lizama fasbir ala ma yaqulun muñal ci li yéefir yi di wax wa sabbih bi hamdi rabbik ca ngay sabbal ci sa cantug borom qabla tulu shams bala jant bi di fenk wa qabla ghurubiha ak bala jant ba di so wa min ana al-layli ak ca biir waxtu guddi ya fa sabbih dee ko fa sabbal wa atraf an-nahar ak ca ci bëccëg ba la'allaka tarda ngiree nga doon kuy gërëm wala tamuddanna aynayk bul tàllal mukk say bët nag ila ma matta'na bihi ci ñoo xam ne dañoo leen xéewal ca ñoom azwajan ñi nekk ay peer ca yéefér yële ay ñu mel na ñoom azwajan minhum ay peer ñu bokk ca ñoom zahrat alxayati dunya ay mattaanahum zahrat alxayati dunya ñi ngi leen xéewale lii di taar bi feeñ ci àdduna li naftinahum fiihi ngiree rek ñu fitnaal leen ca wa rizqu wa rizqu rabbika amma sa wërsëg boroom xayrun wa abqa moo gën ca mooy sax mi ngi noonu mbokk bu ñu xoolee biñ fi yàlla mujj dajale àllarba ji wees sunu borom mi ngi ñuy nettali benn jaar jaar buy am yowmal qiyaama yàlla dana génn nit ñi ci seeni bàmmeel bu ñu génnee mu am ñoo xamee ni nii teeru nañu leen teral nañu leen yal na yàlla boole ñu ca ñooñ mu am nag ñoo xam ne dañuy génn seeni bàmmeel yéeg na ñi ngi ca mbooloo mi waaye dañuy gumba ñu ne ay yàlla ñun day yaa ngi ñu dekkal ñu nekk aji gumba te yàlla ñun ba ñu nekkee ci kaw suuf dañ doon gis te fekk ne mbokk lay wone gumbag alaxira ak gisug alaxira loolu mooy ña nga xam ne seen xol da doon gis ci àdduna même bu doon dañoo gumba woon amma ñu seen xol gumba woon ci àdduna même bu doon ñoo dàq gis dañuy dekki daal di doon ay silmaxa moo tax sunu borom ni innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur du ne bët yi mooy gumba mais lii gumba mooy xol yi nekk ci biir dënn yi loolu it ku nekk ci ñun war ci bàyyi xel sunu borom yàlla daal di koy tontu daal di ne ko ay sab jaam ca ngallawaay yonent bi salallahu alayhi wa sallam xamal nañu ni amul kenn ci ñun lu dul yowmal qiyaama dana wax ak boroomam du gis avocat du gis ku koy jàppale diggante mook moom yàlla kese bay day foog moom rek la yàlla di atte yowmal qiyaama sunu borom na ko waaw dekkal naa la nga gumba waaye li ko waraloon samay aaya dala dikkaloon aaya yooyu mooy lan samay ndigal ak samay tere dala dikkaloon nga daal di koy fàtte fàtte ga mooy lan ay taraktal amala biha nga bañ koo jëfe naka noonu nga bàyyee woon samay ndigal jëfewoo ko naka noonu laa lay bàyyee ci sa mbugal googu loolu it kon mbokk ñu góorgóorlu bu baax ci lépp loo xam ne xam nañ ko ci ndigalu yàlla jalla wa ala ñu góor góorlu ca suñu kemtaleel kattan borom bi nag ne nii mu waxeek waa ji mu mel ne benn waay bi wax mu yomal qiyam mu ne noonu lay fayee képp ku jéggi dayoo mbokk jéggi dayoo ba ca gën a bon mooy jéggi dayoo ba bokkaale ak sa borom yàlla kese nga war a jaam nga jéggi dayo di jaamu yàlla ak leneen boobu mooy ba gën a bon donte ne jéggi dayo dana am ci la la yàlla aramaloon nga def ko la la yàlla farataloon nga bàyyi ko jéggi dayo dana am ci tooñ jaamu yàlla yi ala kulli xaal xatta yi dagan sax man nga dem ba jéggi ci dayo sunu borom mu ni kazalika najzi man asraf koo xam ne gëmul woon aayay boromam ca xam leen ne mbugalu àllaaxira day moo gën a tar ca moo gën a sax mbokk julit yonent bi salallahu alayhi wa sallam daf mos a toog ak sahaaba yi ba mujj mu ne gis ngeen sawara bii ngeen di toggee ñu ne ko waaw mu ne benn parti la ci juróom ñaar fukki parti naari jahannam sawaras àllaaxira sahaaba yi ne ko ah sawara bi rek doyoon na pour mbugal de mu ne déedéet sawara àllaaxira moo ko gën a tàng juróom ñaar fukki yoon te loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon xëy na sahaaba yi mën na leen jaaxal waaye tey ñun ñu tombé ak voltage yi da ngay gis courant bi ñu ngi utiliser ay 220 volts am na yoo xam ne dem na ba 3000 volts am ñu dem ba 6000 volts courant bi dem ay ICS ay 90000 volts loolu kon ñu gis loolu la yonent bi alayhi salaam wax mu ne sawaras alaxira gën na tàng sawaras àdduna juróom-ñaar fukki yoon muy benn ca àdduna mbugal boo ci mën a nekkee lu mu yàgg yàgg da ngay dee ca boo dee mbugalu àdduna jeex na amma mbugalu alaxira sunu borom subhanahu wa taala mu ne abqa moom mooy la nga xam ne mooy gën a sax léegi nag yéeféer yi ñi ngi nekk naan ay yow yonent yi yow mi ne yonente ga weddi nañ la teewul ñu ñu ngi nekk suñuy xéewal xam nga bu doon dëgg tey yàlla mbugal ñu sunu borom ne xanaa ñoom dañoo seetluwul xanaa ñoom seetluwuñu ñaata lañ alak jiitu leen ci ay maas yoo xam ne tey ñi ngi dox seen dëkkuwaay yi ñi am xel day dañ xalaat ci loolu te mbokk waa makka dañ daan tukki di dem sham tukki di dem yemen daanañ romb place bi waa sàmm dëkkoon bi waa ad dëkkoon bi xawma lut dëkkoon ñoo ñépp sunu borom yàlla subhanahu wa taala alak leen ak xawmu shuayb loolu sunu borom mu ne bu dee dañ ciy xalaat ñii fi nekkoon weddi ñu alak leen ñoom ñu dëkk tey seen dëkkuwaay borom xel war na bàyyi xel ci loolu te mbokk ki am xel dëgg mooy kiy jànge ci ay moroomam tey ji mën nga ci jël rek misaal yow mi nga xam ne yàlla nattoo na la nga dëkk Dakar sunu borom mi ngi lay jàngal ci ne adduna day tee ci ab jaaruwaay rek la boo xëyee fii yaa ngi jaar autoroute ñu ne limaamulaay lañ ko tudde ana limaamulaay yaa ngi dem Faidherbe ana Faidherbe Lamine Gueye ana Lamine Gueye Vincent ana Vincent Jules Ferry ana Jules Ferry ila axiri mooy réewi ndakaaru yépp ay kilifa yu nekkoon ci réew mi la doon baax na ñoom dañoo bon jàppoon nañ ne ñooñu bu ñu xëyul réew mi du dox sunu borom yàlla rompat na leen kenn kenn par kenn ñoom ñëpp dajale leen ci kaw suuf kenn rëccul am deet ndax mas ngeen koo gis ñu naa ci day ca génération yi jëkk yi la bokkoon am na deux siècles mi ngi ni du dund mas ngeen koo gis abadan kon kenn du rëcc sunu borom yàlla nag nekkoon képp koo xam ne yaa ngi xëy di dox ci sa suufas maam xamal ni bu dee borom xel la war nga bàyyi xel ci lan ci na àdduna illa mataun xurur bànneex bu ndaw la rek boo xam ne buy naxaate la góor góor lul ba bañ a bokk ci ñam yi nax yal na yàlla boole ñu ca borom boobu nag ne loolu ñuy yàkkamti ne lu tax mbugaluma leen daa fekkoon am na kaddu gu ma saxal ci ne génération bu nekk seen dég fii lay yem loolu moo tax ba lu ñu mën a def ci mbalit ñoo xam tant que dig ba ñëwul yàlla du dal seen kaw amma bu dig ba ñëwee dara mënu ko daq léegi kon ana looy def mooy muñal ci li nga xam ne ñoom ñi ngi koy wax ca it loolu yow julit nga bàyyi ko xel képp ko nekk ci yoonu dëgg góor nga jigéen nga fokk ñu critiqué la loolu bàyyi ci xel heure boo nekkee ci société ca kenn critiqué wala da ngaa war a tiit loolee da ngay gis ne yéeféer ba maaw situm daana ko wax chinois yi mu ne na ngeen xam ne bis buñ demee ba impérialiste américain yi occidentaux yi dem nañ ba bàyyi ñu di critiquer dañu tagg rek tiit leen ca mooy wàcc ngeen yoon bi ngeen waroon a jaar loolee moom ci ay xalaatu communisme la la ko xalaatoon ak na mu wutee capitalisme waaye am na yow julit da ngay gëm ci sunu borom yàlla subhanahu wa taala lim ñi wax mooy wa aksaruhum lil xaqi karihun li ëpp ci nit ñi bëgguñu dëgg kon heure boo jógee ne da ngay jëfe dëgg mooy sunna bi yonent bi salallahu alayhi wa sallam nekkoon ca lay sax commencé sa famille say xarit say dëkkandoo say ñu ngay bokkal liggéey ñu nga bokkal tukki fokk ñu critiquer la waaye sun borom mu ne fasbir ala ma yaqulun muñal ca la nga xam ne moom la ñuy wax ca nga sax di sabbal sa borom ay di jullil sa borom te xam ngeen mbokk julli la ca gën a am solo mooy tasbix ya yaa ngi jàpp say oom subhana rabbi al azim boo ca dolli woon wa bi xamdihi moo gën a baax subhana rabbi al azim wa bi xamdihi boo tegee sa jë yaa ngi naan subhana rabbi al aala boo ca tegoon wa bi xamdihi moo gën a baax subhana rabbi al aala wa bi xamdihi boo jógee ci rukoo sami allahu liman xamida nga wax allahuma rabbana wa laka alhamd ay booleel di ko sabbaal ak di ko sant kañ balaa jant bee fenk ca loolu mooy jullik fajar balaa jant bee fenk ngal la waay yow mi nga xam ne yaay borom xel bu la liggéeyub àdduna gënal sa rendez-vous borom am na ñoo xam ne sept heures la ñuy dugg seen bureau donc balaa six heures a jot yeewu nañu préparé nañu ngir bañ a tardé ci liggéey ba waaye tey le dimanche liggéeyuma da ngay nelaw ba neuf heures ngay doo ko jóg kooku yow yaa ngi gën a la adduna ci alaxira loolu nga bàyyi ko xel bu baax su ko defee ngal la way julit bu la dara jaral faat la nga xam ne mooy waxtu fajar gannaaw ba lii sunu borom mu ne wa qabla ghurub avant jant bi di so julil te mooy takkusaan takkusaan boobu itamit bu la dara jaral nga fàtt ko di ñaari waxtu yi gën a jafe bee da lay fekk ci bànneexu nelaw bii da lay fekk ci intérêt adduna ca la langue yi di sax ca la sport bi di commencé football yaag lamb yaag yu kenn xamul léeg-léeg ca la commerce bi di gën a dox waaye sunu borom mu ne bàyyi ko xel yonent bi alayhi salaam ne man sallal bardayni daxala al janna koo xam ne ne da ngay dem yowmal qiyaama mosoo faat fajar mosoo faat takkusaan xamal ne yaa ngi ak visa direct al janna yal na yàlla defal ñu ko waaye noonu la ñuy waxoo nit ne man faatatahu salaatu al asr fa ka annama wutira ahluhu wa maaluhu waa ji topp commerce bu àdduna football bu àdduna ba neexi àdduna ba takkusaan jot ba jant bi soo ci julliwul la ka dal ci musiba mi ngi mel ni ki tukki woon ñëw ñu ne ko yow day sa fam yépp dee nañu sa alal ji nga amoon yépp takk na ca la chaq ne ab julit dëgg dëgg bu xamoon ne su ma julliwul takkusaan sama cent mille réer bu ko dalee tey bala koo dalati di fukkaat ci kanam am déet su ko defee comme ñu bàyyi ci xel loolu mbokk julit sunu borom it mu ne ana illayl lu bari ci borom xam-xam yi dañ ni julli gee rek la ci yàlla jublu julli gee mi ngi noonu ca itamit da ngay gis moom lu mu gën a guddee mu gën a baax waxtu julli yépp nga julli ko ci njëlbeen bi la gënee bu dee gee nag lu mu gën a guddee day gën a baax wa atrafa nahar la nga xam ne mooy catu bëccëg bi lañ koy firee mooy tisbaar bi ak timis bi nga xam ne fi bëccëg bay jeexe rek moom la waxtoom taxaw loolu kon ñu ne mooy juróomi waxtu julli juróom yépp dugg na ci loolu te itamit mbokk jullit xamal ne ki nga xam ne dafa xëy julli ñetti waxtu wala ñeenti waxtu mooy ki bëggoon a composé benn numéro téléphone bàyyi ci benn chiffre ndax dana sotti abadan lu ko defee il faut nga respecté sa waxtu julli juróom sunu borom yàlla daal di la koy nangul borom boobu nee na loolu day boo ko defee laallaka tarda su boobaa da nga gërëm sa borom te mbokk julit amoo gàllaaj bu gën a màgg amoo yaakaar bu gën a màgg ci jàmmi àdduna ak jàmmi àllaaxira nga am ko ci lu toll ni taxawal waxtu julli juróom loolee ngeen bàyyi ci xel bu baax ca mooy yàlla def na ci texe ni ngi noonu borom boobu nag wëlbatiku waat ne ay yow yonent bi te mi nga wax ak xeet bi ba ilaa yumiddin bul jël sa bët mukk teg ko ci ñi nga xam ne dama leen a jox xéewulu àdduna ca jaamu wuñ ma nga xam ne ñoo yéefir yu jikk yaayam ma jox leen xéewalu àdduna bul xool sa bët yépp jëm ci alal jooju te lii tamit mbokk yi yonent bi alayhi salaam daa nañu wax ne yow julit bul ñee lu dul ñaar ñi kii dafa am alal alal ja mu koy jël di ko def fi neex yàlla nga naan aka neexoon ma am li diw am bay mën a def li mu def keneen ki yàlla da koo may xam-xam mu koy jëfe di ko jàngale nga naan aka neexoon ma xam li diw xam bay def li muy def amma julit du ñee mukk benn waay romb ko ak ab hamëram wala lu mën a doon ci wote yi mu dar gi mu ñëm chet ay waay lii su ma ko amoon wala romb am taax mu kawe mu ne ay waay lii su ma ko amoon déedéet julit mooy kii doy loo la ko yàlla may tekkiwul nit ne ne daqul te ne yaa ngi sabablu ngir am lu dagan ca tey waaye doo jël sa bët mukk di ko teg ci koo xam ne rawatine bu dee la ko yàlla jox boolewu koog jaamu yàlla sunu borom yàlla subhanahu wa taala ne xam leen ne loolu dañ koo def li naftinahum fiihi bépp alal bu àndul ak jaamu yàlla fitna la ñeel borom bi te yàlla xam nu mu leen di fitnaale ala kulli xaal dañ ci xam de manière générale occident bi nga xam ne tey quatre vingt pour cent des ressources àdduna bi fa la nekk gis nañu ne fitna bi leen yàlla teg mooy nekk ñu ci jàmm amuñu vie de famille amuñu ak dal amuñu cafeel amuñu dara c'est des foules solitaires xaru drogue kaza wa kaza loolu kon borom bi mu ne alal ji dama ko def ngir fitnaal leen kon luy pexe borom bi mu ne rizqu rabbika xayrun wa abqa xam nga looy def fexeel ba jot sa wërsëg borom bi nga xam ne moo gën loo mën a gis ci àdduna ca mooy sax wërsëgoo mooy leen mooy aljanna waa ji mi ngi nekk ki alalam mi tool yaag magasin yaag lépp ngi am fexeel yow jéem koo ëppale ci yoonu aljanna mbokk aljanna moo gën lépp lu ñuy gis sunu yonente salallahu alayhi wa sallam jox ñu ci misaal boo xam ne julit waru koy fàtte nee na soo bëggee xam luy aljanna ak xéewal yi nekk ci àdduna da ngay dem ba géej nga jël sa baaraam samp ci ndoxu géej gi yëkkati nee na li tax sa baaraam mooy tolloog mboolem xéewal yi nekk ci àdduna la des ci géej ga nag mooy aljanna ndax gaa yi lii mënees du ko méngale abadan su ko defee sunu borom yàlla nag mu nekkoon góorgóorlul ci xam ne sa wërsëg borom moo gën te it mooy gën a sax yàlla na yàlla jagleel ñu ko
وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى
سنبروم جل وعلا مني وأمر أهلك بالصلاة del digal sa njaboot ci ñi julli wastabir alayha ca nga muñ ci julli googee laa nasaluka risqa laaju ñu la benn wërsëg nahnu narzuquk ñun ñoo lay wërsëgal wal aqibatu li taqwa mujj ga day ma ngay ñeel ragal yàlla ay ka ragal yàlla wa qaalu lawla yaatina bi ayatin min rabbi yéefiri ñi ngi naan ana lu teewoon mu dikkal ñu ci kawtiif bu bawoo ca boroomam awalam taatihim bayinatu ma fi suxufi l ula amu ndax ñoom dikkalu leen lay wu leer wa nekkoon ca téere yi nga xam dafa jiitu woon walaw anna ahlaknahum bi azabin min qabli bu doon te ne nag ñun dañ leen a alagoon ci mbugal jiitu yenent bi la qaalu rabbana lawla arsalta ilayna rasula kon da nga gis ñu ne ay yàlla lu teewoon nga yónni ci ñun ab yenent fa nattabi a ayatik ñu topp say aaya min qabli an nazil jiitu ñuy doon aji suufe wa naxza jiitu ñuy doon aji torox qul kullum mutarabbisun fatarabbasu sunu borom ni ñépp ñi ngi toog di xaar toog leen di xaar fa sa taalamuna man ashaabu siraati sawiyi wa man ihtada xel sa ngeen a xam ana ñan ñooy ñoñu yoon woo nga xam ne mooy yoon bu jub wa ak kan mooy ka nga xam ne moo nekk di aju jub ca yoon woowee mi ngi noonu mbokk gis nañu sunu borom mi ngi ñu wax sànq ci ñi ñu war a taxawale julli waaye ndax góor gi nga xam ne dana góorgóorlu bu fajar jotee mu daal di jóg daal di xëy na sax dem jàkka ja waaye bàyyi njaboot gi yépp ñi ngi nelaw ku mel nii ndax dana am ngërëmal yàlla sunu borom mu ne déedéet digalal sa njaboot ñu julli te ngalawaay yow wayjur xamal ne amul benn ordonnance amul benn taxawaay boo mën a taxaw sa njaboot réussir ci lu mel ni réussite bi ngay am ci boo leen saytoo ba wóor na leen ni waxtu julli juróom yépp ñu ngi koy julli loolu farata la bu yàlla gàll soloos déggalal sa njaboot ñu julli ca yewit nga sax ci julli googee di muñe ca julli googee te mbokk julli wax nañ leen ko sànq adduna problème yi fi nekk kenn xamul lu mu toll waaye sunu borom mu ne wastainu bi sabri wassala dee leen dimbini ko julli ak muñ sunu borom yàlla subhanahu wa taala bi muy wax doy dig doomu aadama inna al insana xuliqa halua ida massahu lcharu jazua wa ida massahu lxayru manua lam jëkk a wax mooy illa al musallin doomu aadama dafa doy di heure bu xéewul ñëwee beew na boo ñàkk ñëwee saalit na sunu borom mu ne ba mu des jullikat ya loolu kon ñu bàyyi ci xel bu baax di fexe njaboot gi ñuy julli xoolal yonent bi salallahu alayhi wa sallam waxuma farata waaye dana wax yal na yàlla yërëm góor gi yeewu guddi di naafila ne soxna si jógal naafila mu bañ mu jël ndox wi tax ci kanamam ba mu yeewu ñu ànd naafila yal na yàlla yërëm jigéen ji nga xam ne mi ngi jóg di naafila ne borom këram jógal ñu naafila waaye mu bañ mu jël ay ndox wi tax ci kanamam ba mu jóg naafila loolee yonente bi alayhi salaam jox misal góor ñi ak jigéen ñi démb rek ba nga am benn soxna boo xam ne mi ngi may woo boole ma ak borom këram ci ne naa ko ñaax muy waxtu julli juróom gaa yi ndax kooku soxna soosu mi ngi Thiès wala mi ngi Kaolack wallahi mi ngi biir Norvège gis ngeen di ñaax naa insisté pour jëkkër ji day sàgg na julli naa insisté wax ak moom loolu kon mbokk di mbiri yàlla bi nga xamee ne nii sunu borom yàlla buy wax ëhlëka lañ ci jëkk a dégg mooy yéen góor ñi wax leen ak seen soxna yi ak seen doom yi waaye yéen jigéen ñi tamit léeg-léeg yàlla boole la ak jëkkëru caamin bu sàggan du yéefir yéefir kenn du ko wax jullit waaye ku sàggan la ngal la waaye da ngay gis day nelaw ba jant bi fenk mu doog a jóg julli bu nekkee ci bureau ba ji liggéey takkusaan yoonam nekku ci ni ngay kaase sa col di kaas sa dépense ngal la waaye taxawal ci loolu di ko wax ak moom koo ko mën a booleel nga booleel ko njaboot gi it naka noonu mooy nañuy digal njaboot gi ñuy julli bu dee góor ñaa ñu ñaax leen ñuy dem ca jàkka ja te xam ngeen ne bokk na musiba góor toog ci këram jàkka ji nodd mu dégg nodd bi ba pare demul wuy ji te musiba yi gën a garaaw ca la bokk bal am na ay borom xam-xam yu ne aslan julleem sax baaxul waaye lañ cay wax rek mooy musiba la ndax musiba mun ta paase yeneen bi alayhi salaam ne xalaatoon naa dem taal kër yi seen kaw ak yeneen bi ni mu amee yërmande loolu kon ñu bàyyi ci xel bu baax wastabir alayha loola mën a dal ci problème melal na sa yonente salallahu alayhi wa sallam suñu yaay Aïcha nee na kaane ida xasabahu cheyun fazia ila sala lu ko mas a bett jaaxal ko day jóg daal di julli comme bu daan problème bu rëy yu mas a am ci kaw jullit ñi danaan wax arixna biha ya bilal dalal ñu ci yow bilal bilal noddu jullit ñi ñëw mu jiite leen bu ñu jullee ñaan yàlla rek mbir bu woyof ci ñoom loolu kon wastabir alayha soo amee lu la jaaxal defal julli salatul istixaara da nga am loo bëgg julil ñaari rakka tànnaloo sa borom lépp loo xamee ni nii yaa nga cay jublu ngal la waay jullil daal di jokkoo ak sa borom ñu ngi noonu loolu kon ñu bàyyi ci xel bu baax mbokk julit borom boobu it subhanahu wa taala gis nañu bi nga xamee ni wax ni lii mu ne nag wërsëg man laajuma la ko ca mbokk tey da ngay gis ñu bari ci doomu aadama yi li yàq seen diine yàq seen diine ak njaboot mooy daw dabu ji wërsëg ñu bari ci nit ñi tey tubaab bi indil nañu luy jardin d'enfant gars yi jardin d'enfant ndax mën ngeen ko wax ci wolof déedéet indil ñu ay préscolaire xale yoo xam ne nii deux ans trois ans ñu commencé leen bokkal ay saak ñuy dem ba élémentaire secondaire ba université dem a dem ba décrocher seen bac musuñoo toog fuñ leen jàngale fatiha jël sànni canada wala new york ngiree jëkkanteeg ñoom ñu teel a réussir pour lan ngir wuti wërsëg sunu borom ne jaru ko woon moo na boo ko jàngaloon jaamu yàlla it wërsëg sama loxo la nekk aka bari tey ñu jaar ci chimie boobu ba dem bitim réew décroché fa ay diplôme ñëw nekk employé ci koo xam ne ca daara ja la nekkoon ak bari ay entreprise yu nekk Dakar ñi ngi employé ñoo xamee ne nii li jaase yi ñor ñoom mënuñu ko sa comprendre ci ñoom daara ji lañ jóge te ñoom ñoom moom société yi su ko defee kon ngal la waaye nañu xam ne waxuñu bu leen jàngal seen doom yi lekkool waxuñu bu ñu nekk ay diplôme ay diplômé waaye nañu xam ne loolu c'est secondaire mais les priorité ci sa njaboot mooy xamal ko boroomam subhanahu wa taala jàngal ko diineem jàngal ko alquran amma wërsëg yi loolu moom ci loxo yàlla la nekk yàlla mu ne naxnu narzuq maa yor wërsëg waaw naka nga yow julit xam ne yàlla ma yor wërsëg ba pare yàlla mu ngi dummuyu ko dem di ko sàkk feneen soo ko amee du barkeel su ko defee naxnu narzuq te xamal ni mujj gu rafet ñi ragal yàlla ñoo koy am mbokk am mujj gu rafet ci àdduna ak alaxira alal mayewu ko nguur mayewu ko taar mayewu ko siiw ba mel ni je ne sais pas Michael Jackson mayewu ko la lay may mujj gu rafet àdduna alaxira nga fekk fa xéewalu mujj gu rafet la la ko may mooy at taqwa wal aqibatu li taqwa léegi nag yéeféer yi bokk na luñ doon wax waaw moom ana lu teeru mu indil ñu kawteef bu bawoo ci boroomam te ñoom kawtee fii mooy lañ ca namoon makkaa ngi nii xotti fi ay dex safaa ngi nii defal ñu ko or yéegal kaw asamaan ñu gis la waddalal asamaan suñu kaw comme naka yàlla waxee ci suratul isra sunu borom ne moo ne day doyoon na leen preuve alquran ji ñuy jàng mboolem xabaar ya nekkoon ci téere yu jëkk ya mi ngi leen koy détailleel wax leen fa yàlla jaareke noonam fa yàlla musule ay nitam te kii koy jàng musul génn makka musul jànge ci feneen loolu rek dayoon na leen preuve waaye ki narta gëm moom di gëm borom bi nag ne mi ngi nii yónni naa yonent ñu weddi ko te su ma yónniwul woon yonent buñ leen di bëggal ñu ne yàlla lu teewoon nga yónni ci ñun yonent gis ngeen te mooy doomu aadama kenn mënu ko takk fenn te loolu it tax na ba bokk na question bi ñuy posé am na ñoo xam ne yonent musa yàgg ci ñoom musul yegg ci ñoom am na ñoo xam ne dañoo judd dañoo dof am ñoo xam ne ay xale yu ndaw doomi yéefér noonu la ñuy dee luy seen mbir yowmal qiyaama lay seen mbir mooy yowmal qiyaama sunu borom yàlla dana leen nattu gannaaw bañ ñëwee jàmbat ku la jox sa lay yàlla ne leen waa baax na léegi daal di leen di melal sawara na leen may seen borom bi ngeen ni ba ma yónnee woon yeneen ci ngeen gëm ko ñu ne waaw mu ne waaw léegi dem leen ngeen dugg ci sawara bële yàlla mi nga xam ne ñun ñi ñëpp xam nañ ña ko ci nar a jaamu ak ña ko ci dul nar a jaamu ña nga xam ne ba yeneen ci ñëwoon ci ñoom àdduna ñoom ñëpp ne bërit jóg na ñun suñu borom yàlla lum ñu santaane ñu def ko te wallahi mbokk bu la bu mu la jaaxal am na fi ñu gëm seen sëriñ Sénégal lay wax de waxuma Inde wala Pakistan am na fi ñoo xam ne gëm nañ seen sëriñ gëm goo xam ne bu leen waxoon dem leen tàbbi ci sawar yi daan dem tàbbi ci xanaa kay na ci gannaaw la ñuy xam waaye bu ñu tàbbi loolu dañ ci tàbbi sunu borom loo ñu digal ñu def ko bi ñu demee ba jub sawara wa malaaka yi buub leen yóbbu ajjana am na sax ñu naan dañu fay dugg mu nekk ci ñoom bardan wa salaaman al muhim yàlla dañ leen musal ñeneen ñi nag toog fa naan ah yàlla bu ñuy sant dañuy sant lu ñu man waaye xam na sawar bi kenn mënu faa dugg mu ne voilà ñu ngi noonu léegi nag ñoom ñu buub leen yóbbu sawara ala kulli xaal sunu borom yàlla subhanahu wa taala loolu la wax ay yàlla lu teewoon nga wàcc ñun aaya bala ñoo torox loolu it kon yàlla wàcc na ay aayaam léegi nag comme loolu mooy seen lay borom bu ne ku nekk yaa ngi toog ay toogaayu di xaar lan mooy sa résultat mbokk ñun ñi ñëpp am na lu ñuy xaar suñu kanam yéeféer yi am na lu ñuy xaar seen kanam sunu borom mu ne ku nekk ngi toog toog leen daañ ma sa xam nag ana kan moo tege ci yoonu njub bi ak kan mooy ka nga xam ne mooy aju jub ca mbokk mbir bi ñaar la bi njëkk mooy xam yoonu njub bi tege ca te mooy juddoo ci lislaam daa di topp la yonent bi salallahu daa di xam yoon ba yonent bi ak sahabaam nekkoon waaye ba nga xamee ba pare it nga teg ci sa tànk ba daa di cay faatu loolu bu ngeen demee yowmal qiyaama sunu borom nag ne keroog ngeen di xam ana kan mooy ki nekkoon ci yoonu njub mbokk li moo nekkoon suratu taha di saar boo xam ni fees na dell ak i njàngale waaye rawatina fees dell ak i misaal yoo xam ne doomu aadama yi buñ ciy bàyyi xel insha allah yoonu njub dana yomb ci ñoom yal na yàlla yombal ko ci ñun